زنبال واني نفى إبليس في بار ما ينبال لرب الغفور القد مها أني يا زنبال واني نفى إبليس في بار ما ينبال ah sant yàlla alhamdulilah rabil alamin ah, sama papa Cheikh moom xol yëpp dafa tooy fii soo fi duggee te fekkoo ko fi rek xol yëpp dafay tooy mais dañuy delloo suñu borom rek dañuy delloo suñu bopp ci suñu borom rek sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci sang bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam di ñaanal yàlla xale yi fi des ñi ko yor yàlla dëgëral leen kattanal leen. ba fi tonton Cheikh tegoon tànkam ñoom ñu romb ko yàlla fi ko kawe ci daraja yi sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf kooku ñu jëloon léegi mooy Adja Daba Sey di jarbaat ci kër gi kon tey ku ne xam ne nuñ dundee màgg gi sama papa Cheikh wéet nañu nag waaye ba tey wéetuñu ndax njaboot gaam fi xale yaa ngi fi macha allah bi ñu ñëwee lee gis nañu xasida te ku ne xam ne loolu rek la bëggoon jël ko waa maa ngi lay fay. xanaa di sant yàlla rek di julli ci yonent bu tedd bi di sant sunu ñaari waajur di ñaanal sunu waajur yi ñu jiitu yépp yàlla yërëm leen te yeexañu papa Cheikh nag lii mu def lii ñu ko defal tey lii la xam lii la njabootam xam lii la saxal ci këram saxal ko ci njaboot di saxal ko ci sët yi ak sëtaat yi kon lii tey du sens mérite la xanaa ñu koy ñaanal rek kum fa fekk ak ko fa fekk yàlla yërëm ko te yeexeñu waa léegi wàccaay màggal gi ak safar gi ak ñi fi génn ay loolu nu ngeen ko dundee yéen famille bi. famille bi xanaa di sant yàlla rek nag ndaxte ku defoon daaw ñaan yàlla fekke ko ren ak cant mënu koo paase. yal na ko yàlla gën a saxal ñu defe ko ci bisimilahi rax rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin yal na ko yàlla jaarale fa lépp daan jaar ci barke Seexul Xaddim boroom màggal gi. jërëjëf kooku mooy Soxna Awa Thiam. yaayu Kumba Jong sama xarit di ko ziar bu baax di ko tey muy ay murit nag xam naa télé bi dina ñëw fekk si la kër maam mën lay ca Touba Touba xayra la wala xayra waaw foofu xayra waaw waa dañuy gën a sant yàlla gannaaw bu ñu santee yàlla bu baax a baax di sant suñuy ñaari waajur waa di amati mbégte loolu dëgg la tey bis bi day bisu safar ci Touba ñu xëy na nag euh, bisu safar bi li mu làmboo dafa bëri. ndaxte benn avant sax Papa Cheikh ba mu fiy nekk dañ koo nekkandoo woon di ko jàppal bisu safar daanaka boo xoolee ca ba muy dem ba muy dem ba muy wàcc ba muy wàcc ba muy wàcc maanaam daanaka bañ ne dañuy jàpp bisu safar dafa ne déet nañ xaar ba weer bi teru li yàlla di dogal moom bis bi nga xam ne ci la wax ne nañ ko jàpp bisu safar moo nekk bisu ñaanam bisu ñaanam cest à maanaam bisu ñaanam maanaam bis boobu ci lañ ko dëjal. Ah, ci la woon sarax si. ci la woon sarax si. ci la woon sarax si loolu moo tax ma ne bis bii dafay nekk bisu sant. ren nag dafa exception. Mm-hmm. ndax ndaxte dañoo boolewaale tey képp ku njabootee maam aatu jum. maam aatu jum képp koo xam ne da koo njabootee. reñ dañ laa boole waale ci bis bii ñu def ko ñaan. Mm-hmm. ba ci tey sama tante bi nga xam ne ni moo génn àdduna bërki démb muy kan Marème Gueye. waaw Marème Gueye ak ku ñuy wax Ndeye Coro. ak ak ak ak sunu nijaay Papa Ndiaga Dioum. Ndeye Sane Papa Ndiaga sama baay. sa baay bu baax ñoom ñëpp tey dañ leen ci boolewaale ñu def ko tey daanaka bisu safar la mais di bisu ñaan. moo tax daal dañ ciy gën a dolli sant yàlla di ñaan daal lépp luñ fi ñàng muy kaamil di ay xasida yàlla ko suñ borom nangu. yàlla ko suñ borom nangu di ñaan bu baax a baax yàlla nañ ko teewe ndege ni déwén màggal gii ñuy dégmal. yàlla na ñëpp suñu borom bett ñu xéewal gu ñu bett lool ba kenn ku ne li nga yéene bëgg koo def ci màggal gi ñu mën koo àggalee ci jàmm ak salaam que suñu borom defaral ñu màggal gu ñu nangu ci barke yonent bi si waat ci sëñ Bamba jërëjëf. jërëjëf Dioum kooku moy Ibrahima jum di doom ci papa Cheikh waaye nag waa waajuram bi ko jur ci gaja muy njaga doon taalibe bokk ak Cheikh ndey ak baay ñuy ñaanal waay daw li fi jógee yal leen yàlla yërëm ñu ñaanal njaga. papa Cheikh ñoom Ndeye Coro Marème Gueye ki feebar yàlla leen yàlla yëkkati ci barke Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba fii ma taxaw tey maa ngi fi taxaw Touba Njumeen kër Alaaji Cheikh Dioum nee naa ku ne xam na Alaaji Cheikh ak màggal Touba ku ne xam na Alaaji Cheikh ak safar gi ku ne xam na Alaaji Cheikh ak bëgg sëriñ Touba ku ne xam na Alaaji Cheikh ak màggal Touba ma taxaw fii jóne Alaaji Cheikh jum Alaaji Cheikh Dioum muy doom ci borom kër gi ma maa ngi nuyu Alaaji waa ñi ngi leen di dellu baax Adja Fat Baba di ñaan sunu boroom ah, lii yàlla bu mu doon suñu mujjug safar yàlla nañ ko def at yu bëri kenn bañ a manqué ndax kat tey lii day wan ne rek màgga gi dafa dafa jub si ñu xam ne wàccaay yi lépp rek ku ne ak fànn nga koy wàccaa waajale incha allah. waa léegi yéen dama bëgg maa ngi la xam naa nag xoli na. waaye sant la nu ngeen dundee tey sa san Cheikh. waaw niñ ko dundee rek tey boo neen noo dundee màgg ak Serigne Touba new fi loolu day ñuroo rek ñu ne noo dundee safar fii ci kër gi te sunu baay ju baax ja woon alaaji papa Cheikh Dioum di ñaan sunu borom rek yàlla yërëm ko te di ko xaar ko aljana ak bépp mboolem jullit bu ma fekk ak koy fekki. Mhm. alaaji Cheikh yow nga nekk ci kër gi ku ne xel papa Cheikh dara ñëw fii di jaabante ñu nekk ci xasida yi nekk ci togg yi. ak financement yi nu ngeen def ba togg lii dañu am ndimbal wala nu mu demee noonu. waaw daanaka liñ fi gis lépp lii benn askan la di waa kër Cheikh Ibrahima bokk ñooy bokk fi ñuy nekk Dakaru ñooy bokk fi ñuy nekk si daanaka lépp loo xamante ne yëkkati nañ ko bëgg koo def bu ci kenn ku nekk rek defee sa dërëm rek daanaka ah yëfi daal di jag. moo tax li nga fi gis lépp xéwal la jóge ci mbokk taalibe yi ñu def ñu def ko fi ci ñun nag ndax kiñ koy defal a tax ndax Sëriñ Tuubaa mi nga xamante ne lu ni mel moom lañ koy defal di ko waajale bisa mbële loo ci def da koy xeeb moo tax loo li nga gis ñu fi def lépp daanaka mbokk taalibe yi ñoo ko dajale kii ko maanaam ñi fi nekk dëkkandoo yeeg ñi mënta màggaleeg ñëpp ñu bokk ñoom savouré bokk ñoom dëkk bokk ñoom màggal gi ñu xam ne ñun Serigne Touba la mu woote woon rek képp koo xamante ne sama mbég sa mbég la ñu ah nag ma santale suñu borom. moo tax ñi fi nekk mënuñoo dem daanaka ñoo bokk yëfi togg nañ ay tag togg génn ci mbedd yi jox ñëpp ñu xéwlu lu laaj lu ñuy waajal ñu xam ne màggal Touba la ñuy waajal incha allah. waa léegi diggante Papa ak Safar ak màggal Touba. waaw diggante Papa ak màggal Touba daanaka. moom moom moom njëkkewul ci moom ndax fa mu ne woon doon fa jëwriñ amoon na yeneen jëwriñ yu fa nekkoon ku ku laaj sunu maam Cheikh Mbacke Bey mbaa nga laaj sunu maam Aatu sunu maam Thierno sunu maam Mondiaye Bey. loolu mun naa noonu la daal descendant noonu la. waaw daanaka daanaka ci askan wi képp koo xamante ne rek maanaam mate nga ko sëriñ bi moo lay tapp ne yaay yaay yaay doon jëwriñu kër gi. moo tax képp koo xam ne tapp nañ la ko rek dalay tiim rek maaya du dal sa dax ndax da koy ànd ak mbokk yëpp di yëkkatee ñu yëkkatee ndoo di ànd di tegandoo. léegi xam nga mag ñi daanaka ne mun naa ne ñi wàcc liggéey xaw nañu bari ndaxte nijaay papa Dioum euh, wàcc na ak ay sama nijaay papa Cheikh xale yi ngeen yor ko yéen ba du ngeen ci am benn difficulté kenn du leen ko ñaan nu mu demee parce que mag ñi dañoo nawlante woon yéen nu ngeen dundee mbir mi. waaw niñ koy dundee rek ndax mag ñi bañ fiy nekk. ñoom dañoo jiitu woon rek waaye jiituwuñu dañoo jiitu jiital seen i doom moo tax bi mu fi jugee gëlëmuñu xa dañoo xam nu ñuy def ndax ñoo ko daan ànd ñoom di ko def moo tax bi mu fi jugee ku mel ne Baye Papa Dioum daan na wax ba benn wax ñëpp di ko dégg moytu leen muse mujjee puso bi mu réer daan na wax ba daan na wax ba naan nañu nañu jiital xale yi ndax ñooñu mujj ginnaaw mooy waral lu ni mel bañ fi jugee rafuñu tiituñu def nañ ko namu waree noom luñ ko bëggee woon ñoom luñ tegoon ci fukk yóbbu nañ ko téeméer luñ tegoon téeméer yóbbu nañ ko ci junni moo tax boo xoolee bu ñu nee Serigne Touba amul tànki ginnaaw lu ni mel moo tax ndax dañ laa forger defar la ba nga xamante ne li ngay def da koy def te doo ci am benn rëkk doom doo am benn ndax da nga cee newoon. jërëjëf kooku mooy El Hadj Cheikh di tut tànk ci borom kër gi lii laa leen indiloon tey ci safaru màggal Touba ñu ak yéen ba Touba kañ ngay dem. incha allah bu soobee yàlla suba ci altine bi la bagage yeeg lépp di takk ñu koy daal kii te nañ fàtte nag benn yóbbal rek bu ñuy wax mbokk yëpp ndax bu ñu nee màggal Touba li ko nu ñi déggee dañ dégg dégg-dégg gu gàtt la ndax. Serigne def ne koo xamante ne sama mbég sa mbég la nag ma santalee sunu borom ndax kooku màggal bi mu ngi ko jàpp ne sant yàlla la ndax kat Serigne Touba mi ne euh, ñemewul bor da am pay sunu da ko may da ko defal mu yéene ci ñëpp nag koo xamante ne bëgg nga mbaa bañ ngaa mbaa népp ñëpp la yéen a jàmm sëñ bi nee na Sëñ Tuubaa kenn bañu ko dañ ko umpale rek ndax nit du bañ njëriñam ndax bu mënu bu naan yaa maalikal mulki yaa man jàll an xawadin neewul ilham muridiya dafa ne ilham jami al wara wara nag ñi dégg arab wara wara mooy minda lépp loo xamante ne loxol doomu aadama lot na ci mindaa foonu suñu borom la loo xamante ne loolu nag loolu lépp sunu borom Sëriñ Tuubaa dafa ñaan ne loolu lépp yàlla yàlla nga leen jéggal te nag ci yow ma sabti zamina asar li xidmatil muxtaari fii chehri safar ndax boo xoolee wa hajjatan li mem bi duufin irtada wa hujjatan ala muxaalifin hada boo xoolee daran yallaaw ala muhammadin wa xaaja li li sàmmadi boo xoolee raama rasulullahi mi illaahi kaw ni xadimuhu abdillahi ndax nit sëriñ Tuubaa bu waxee bul xool jëmmi sëriñ bi da xool fa yàlla ne rek daana ko kon gëm gi dina daal yomb ndax li ko yàlla may may ko boppam dafa ne lii sunu borom moo kon nag loo xamante ne yàlla moo ko may mu yéene ci ñëpp maanaam woote pour ñëpp santale ko sunu borom waaye Sëriñ Tuubaa daawul daawul digle màggal gi mukk te toftalu ci gàmmu gi ndax fu ci mosaan wax ba ne ba ci màggal gi da dafay daal di waaj nag ne nañu waaj gàmmu gi ndax nee na ku sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi kon nag ñu ngi siyaar ñëpp di jéggalu di santaat yàlla bu baax ñaan sunu borom yoon wi yàlla na doon yoon wu neex yoon wu dal yàlla na ñëpp dem ci jàmm ñëw ci jàmm te luñ fu ñëpp di wut yàlla ne ko suñu boom may wasalaam jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf jërëjëf kooku ma jum yow mënoo woon a ñàkk tëj ndax chaque année man ak yow yow yaa may tëjal ndii lañ la indi woon tey safar ka alaaji Cheikh Dioum ñu koy ñaanal alaaji Cheikh Dioum ak ay rakkam ak ñam foofe ku wax Papa Ndiaga Dioum Ndeye Coro Saw Marème na leen yàlla yërëm te yal na yàlla jot yoon bi li lay indi woon tey safar ko Alaaji Cheikh Dioum chaque année ñun ak yéen ba kër sëñ Ibra Ñaan ak papa Cheikh yal ko yàlla yërëm te yeexe ko di ñaanal papa Ndiaga Dioum yal na ko yàlla te yeexe ko Marème Gueye madame Touba ak Ndeye Coro Saw waaye mentionné Aminata Bey sama waa nga xam ne moo daan nekk sama kiiwu safar makka yal na ko yàlla yëkkati ci barke Cheikhul Khadim ñun ak yéen ba Touba li laa indi woon safar ba kër sëñ Ibra Ñaan ak ba déwén incha allah